بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات وبفضله تتحقق مقاصد والغايات وبتوفيقه تتنزل الخيرات والبركات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله طيبين الطاهرين رضي الله عن بحر الفهامة أبي العباس أحمد التجاني وجميع خلفائه mbooloo mi fi teew na ku nekk wax alhamdulillahi rabbil alamin si fekke woon bi ak fekke waat bi di ñaan yàlla ñun ñëpp ñu fekke ka ay yoon yu bare bare wax dëgg yàlla am na ñu ko fekkee woon daaw te fekkewuñ ko ren bi ma jógee burdu bu jëkk bi mu jeex ma dem faas am na lu ma yëg sama yaram njaay xalifa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

dañu def ziaru Louga altine structure yëpp ñëw di def ci compte le lundi après-midi bi ma waxtané ba paré may bëgg ñaan mun ma señ bi bul ñaan manika ni bëgg ma bàyyi ma ma jël kàddu bi mu ni dam leen bëgg digal benn mbir kër Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha lenn dong moo fi jëriñe mooy ndigal barke du fi jëriñe juddu du fi jariñe xam-xam du fi jëriñe alal du fi jëriñe Seydi Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha tabax na këram tabax bu nga xam ne bii li ka lay taay mooy ndigal premier bout de ñaari bout dégguma baatu Njaay Khalife waye lolu mu wax mi ngi retentir samay nopp yi année la bu nga xam bi ñu bare dem nañ bay Babu bi doon maître d'œuvre ici dem na si dem bu gatt dem bu bété waa kër sunu baay Modou Issa Samb ñu bare dem noonu ñaaki dem na mooy taaw waaw dem na Umu Kalsom dem na Mati dem na waaw ñu ñaan yàlla ñoom ñëpp yàlla nandal leen ci déggu Kalsom ah ak Aïda Seck itam sunu cuisine germaine ñu bare bare dem nañu waye xam nga kan moo leen mieux. kaw Moi Je suis sunu mam Ahmed Sy ñi ngi célébrer le centenaire de la guerre 14 18 kenn pourtant sa Mam Ahmed Sy a symboliser la grandeur d'âme de cette Hadji guerre 14 18 dafa ñëw tubaab yu ñëw ko ni ko dañu bëgg sa taalibe yi nga yore ñu am ñu ñu recruter leen ñu dem ci guerre mu leen awma ci droit ndax ay doomu jàmbur la dem na leen dénk waaye doom bi nga xam ni maa ko yëlif maa ko jur muy am sëñ Ahmed si su ngeen bëggee jël leen dem ñu dem jël ko dem Nous des sa Salonique de sa guerre 14 18 mais quand suñu des célébrer le centenaire je me disais Merkel ak Macron ñu Saint-Laurent. Je me dis que ça n'a été possible que parce qu'il y a des gens qui ont résisté à la domination allemande puissante am développée développé industriel dans notre dana noot ñëpp ndax aussi ivre de son pouvoir, obsédé par sa puissance. Mais il y a eu des gens qui ont résisté. Ils ont résisté. C'est Hajj Malik là. Il a sacrifié son fils aîné pour la paix. J'aurais bien aimé que maxal Sall, mu lol ken kenn wu ko ñu ñew fi ci di célébrer le centième anniversaire kenn wu loolu kon ñun ñep ñu jang fatiha ak foqikul wallahu ben ñu jagleel ko yonent bi muy hadiye si moom si besam bu toddi bi ku dem gu teddi gi fasali si yéene sunu barbob, bu qui fait la fierté et l'honneur non seulement de la famille de l'âge Malixi, mais de tout le Sénégal fasali si était itam ñi nga xam ni tudd ak ñi nga dem nañu dawlu nañu moo xam moham naa bismillah maa ngi leen di nuyu kenn ku si nekk si turam ak santam di ko def nag si turu sama sang yi nga xam ne ñoom fépp fu Sidi Ahmed jaaroon ni asalaamaaleykum maa nga fay jaaraat ni ay salaamaaleykum guddi gi li si des barewul te dama war jëli góor gi xalif bi laa war jëli ñu dem si jàkka ji

J'étais au centre des assemblées de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le thème, c'était quoi C'est le développement du capital humain. Et Sitraj Malik, toute sa vie, a investi dans le développement du capital humain. dafa l'âge, Sénégal gannaaw cofeel si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm gi nu gëm yàlla ban ressource humaine lañu war développer ba mu taxawal diine si Sénégal Seydi Hajj Malik dans sa stratégie cognitive de communication foofu la exercice le développement du capital humain. Quand on parle de capital humain, c'est l'éducation, c'est la santé et c'est l'habitat. su ngeen dee dox si vous comment nous ñëpp dans une communion totale à l'unisson ben objectif sopp bi ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaral leen lu nekk nag cofeel bànneex ak metit ñoo ko gaar su timis jotee nga tëj sa buntu néeg yàgg sa soxna néeg boobu bànneex xa nga fa mettit la nga fa bu nga xam ni doo ko nettali kenn waaw waaye nee na ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain ñeme ko mu jaral leen ko nag waaye c'est Hadji Malick dafa ni quelle ressource humaine la ñu soxla pour taxawal diine islam ban école la leen di lan la leen di formé donc dem ba banque mondiale dem ba Bali diggante Bali ak Sénégal 28 heures de voyage ma dem ba foofu fekk fa leçon Seydi Hadji ay anglais ay américain mais jàngaluñ ma dara parce que may sa les ressources humaines dont l'islam a besoin les ressources humaines dont notre pays a besoin pour son développement il faut que nous jël manhaju la Malik top waaye itam ma yóbbaale fa nité dama dem Bali Bali, 90% d'hindous et 10% de musulmans. Dans un pays où il y a 90% de musulmans et 10% d'hindous. a Bali ay hindou. lañu waaw chauffeur bi ma doon dawal sax Burda Bourda tout toutou. waaye ma def ma gis fa lu ma yéem ma remarqué ni bali boobu ma nekkoon otel yi gën luxueux ci àdduna fa la nekk foo ko teg xeeb na te man wër naa fu nekk waaye hôtel yu luxueux mësuma ko gis waaye lu ñuy luxueux luxueux soo demee

sa xel ci lan day dem ci Ibrahim ak ba ak baayam yaa abati li ma taabudu maa laa yasma wala yubsir wala yaani anka shay'a un débat un débat de mu ni baayam lu tax ngay jaamu ku nga xam ni du dégg ku nga xam ni du gis ku nga xam ni mënoonu la dara ma moom la Habibuna Najjar waxoon wa jaa min aqsa almadinati rajulun yasa qala ya qawmi ittabi'u mursalin ittabi'u man la yaskul yasalukum ajran wa hum tadun wa ma liya la abdu alladhi fatarani وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يريدنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا C'est un vieux débat. waaye l'islam bu yonent bi moo tax ñu nite bëggam ni statut du lekk du naan te mënaluma dara pourtant ñi mu amal affaire foofu les hindous c'est des gens brillants États-Unis su seen électronique pané sur guddi gi dañ koy yónnee Inde Inde qui dépendé que si guddi gi y a yeewu mu envoyé waat la nga kon ñooñu duñu ay coomo des demee Londres coin bu nekk am fa pharmacie ay Inde ñoo koy diriger kon ñooñu am na nu xam-xam ouais

kon nag sëñ Moustapha ne so jëloon àdduna ak li subir. li nek ci kaw asaman ak li nek ci bir suuf pour fay si Hadj Malick munoo fay si Hadj Malick indi na fi xam-xam bi indi na fi tam structure bi structure ba ngi ni gam fexé ba gàmmu ne melul comme Noël le 24 décembre jenn dedet 365 365 man nga basse وبحر علمك يكفي ناس ساحله سيان في قريب بعيد سمارا وبالخلاص وبالممدوح أطلنا إلا يا ربي والتوفيق واليسارا وبحر علمك يكفي ناس ساحله يعني في قريب باعث السواد وبالقلاس وبالممدوحات لنا إخلاص يا ربي والتوفيق واليسار الله أكبر فالله أكبر جل الله خالقنا أنا من زين الأخلاق والسيارة فالله أكبر جل الله خالقنا سبحان من زين الأخلاق والسيارة الله أكبر جل الله خالقنا من زين الأخلاق والسيار فالله أكبر جل الله خالقنا سبحان من زين الأخلاق والشيار الحمد لله رب العالمين على هذه العتية من شيخ كفى وسرى الحمد لله رب العالمين على هذه العطية من شيخ كفى وزرى إن المواهب تأتي من مواهبكم وشرح والحلم التاريخ حدرا الحمد لله رب العالمين على هذه العطية من شيخ كفى وزرا يا ربي على الهادي وسيرته وآله صحبه آه، أقارب آه، المنورة يا رب صل على الهادي وإطرته وآله صحبه أحمر والأمراء بالحلاس وبالمنطق أعطي لنا إخلاص يا ربي وآله التوفيق والسلام الله أكبر جل الله حالقنا سما سين بابكر موي جاغلل بيتي بي بايام على جمال ني الله اكبر جل الله خالقنا ماغي ييم سي ماغو يالا سونو بروم تبارك وتعالى bi bind yonent bi mbind mu rafet bi mu ko bind jox Seydi Hadji Malick xel mu rafet ak xam-xam bu rafet bi mu ko jox ba mu mën tagg yonent bi tagg mu rafet bi mu ko tagg yéemu naa si yàlla kon nag ñu sant Seydi Hadji Malick santal santal ko njobootam sunu waajur sunu baay sëñ Mbay Si Mansour sunu baay Ahmed Si Ahmed Si suñu baay El Hadj Malick Pape Malick baay Maodo desewunu puso bi mu réer man ma wax ni ñom ñoy doomu mag ñi waaw wax pap si wax naa ko sëñ Bay ñu ngi yaa ngi yaroo si képaru sëñ Moustapha 20 ans sur loxoom te yaay doomu sëñ Mansour sama tourando ba paré mujjé si képaru sa maam Abdou pendant 40 ans de khilafa nga nek ci wetam gis lu bari xam lu bare dégg lu bare lu bare kon suñu na ñun Sénégal manika aussi nekk ci sëñ Babacar mu nekk fa mu nekk ci Cheikh pendant quarante ans nekk ci Cheikh gis mu lay gis suba su rek école nekk ci quarante ans xam lu bare fekkee lu bare gis lu bare dégg lu bare yàlla nee na na ngeen bàyyi xel mag ñi su ngeen amee yiwu ci toogaay bu rafet bii ci gàmm gu gu yaatu gii gàmm gu yiw bii du yéen mag ñi la sam baay moo daan wax doomu mag ñi wuy ñun ñooy doomu mag ñi suñ pap seigne bay moy doomu mag ñi sam paa Ahmed si moy doomu ba sam pap si Malick doomu mag ñi la nu sam pap mawdo doomu mag la ulul baqiya yàlla non la len tudde ulul baqiya ulul hikma ulul aql ulul tamyiz ulul ilm fa jaalnaahu samian basira inna hadaynaahu sabila إما شاكرا وإما كفورا أولو البقية ينهون عن الفساد في الأرض يلا ني نيونيو نيو تاخاو سو صفان بغي تاخاو نيو داخ كامو ديم الا قليلا ني توتي لنو نك يالا مو نجوبوتا يالا ني 7 مليار 500 مليون لا بيند سي دومو ادم 1 مليار 500 مليون رك نيوما توب مان يالا ma mënoo leen fagaagal si kun fayakun waaye man leen laisse mouton pisser Tabaski viendra واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا laisse-nous donc pisser inna ladaynaa ankaalan wa jahiman wa taaman za gussa wa azaban nag ñi ñooñu ñépp maa leen bind waaye minorité illa qalila te gis na ñii di tëb dal naan ñi ngi tegu si man la du seen baax su ma neexoon ñu bokk si ñee ñi nag ñooy doomu mag ñi yéen ñi nekk fii yëpp doomu mag ñi ngeen ku nekk na koo xool xar-xaru kanam dem gis si xar-xaru kanamam juróom bu góor wala waajuram bu jigéen waaye gis nga mag ñooñu itam nag ñoo aar Sénégal dama dem Touba ren ndeysaan euh, ma ni sunu waajur ba fa nekk Cheikh Muntaha ma ni que Seydi ñooy doomu mag ñi bàyyi benn mag moo am muy sa moroom morom Mbakke moo liggéey mel ñi leen ñoom ñëpp ñu jëriñ mbaar fekkee na ko waaye yàlla ni wa ma kaana rabbuka li yuhlika al qura bi zulmin wa ahluha muslihun yàlla ne gis nga mag ñooñu liggéey mag ñooñu nga xam ñoo leen meññ yéen ñoonu meññ ñun yàlla ne su ma demee ba ngeen tooñ ma may bëgg duma su ma xalaatee mag ñi rek dellu gannaaw

ba nu mën liggéey lu mel nii